salaamaaleykum mbokki lamb salaamaaleykum njëriñ yéen ñëpp ñeen saa su nekk ñu ngi waxtaan yéen topp seen actualité bi nga xamante ne mooy lamb ji diggante Balla Gaye Bombardier ñi ma xamante ne ma jël ñii ñii yàgg nañ suivre lamb ñu xam lamb lañu yàgg nañ tamit supporter ki nga xamante ne mooy Balla Gaye parce que ay supporters yàgg lañ ci moom seen diggante ki nga xamante ne mooy Balla Gaye dañ koy bàyyi mu nuyoo maa nga ñu ngi leen salaamaaleykum Aboubacar maa ngi lay fay di nuyu site bi muy wasaare lamb di leen jox seen waay di leen ñaanal ngeen dépassé fii parce que xam nañ taxawaay ci làmb bi ngeen joxe ci làmb di xaar sa beneen question. Ah, jërëjëf maa nga ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy combat bi am la keroog le premier janvier diggante Balla Gaye ak ki nga mooy mooy Bombardier keroog li Balla Gaye bëre lan ngeen gisee li nga xamante ne mooy keroog Balla Gaye. waaw keroog Balla Gaye moom lim indi la bëre ndax lim indi moo bariwul Balla Gaye ku ko xam-xam ni làmb ji. faruma cee faruma cee kenn ci sama sama wax ji may wax Balla Gaye làmb ji ku ci taxaw moo la man bu defee lim war a def mais keroog daa coof làmb ji ndax jàppoon na ni bëri na ak Bombardier mu fekk ci feebar Bombardier daan ko gisul ma niinu bombar Bombardier ba léegi ndax Bombardier sañ-sañ sañ-sañ daanu ko booy ndey sañ-sañ ci làmb ji mu juum la boo xoolee ci mel ni ni waxoon na ko nee na ki nga xamante ne mooy Bombardier bu doon su ma doon conseil Balla Gaye maa ko teel na waru koo jël heure bii parce que Bombardier li koy daan laaj na doole ju bari ak leneen ak leneen wax na ko ci li mooy si combat bi. bii nii man njàngat bi ma ci def mooy donte Balla lañ daanoon mais opportunité yi ci am moom Bombardier moo ko amaat avant ñoo bëre. ndax waru ko woon jëlaat Balla Gaye daa jëlee Bombardier ci suuf yóbbuwaat ko ci kaw. njàngat boobu moom def naa ko ci ndax Balla am na amaana am na ñeneen ñoo xam te waroon na bëree ak ñoom mu yóbbu ko foo xam ne dañ naan moo mën ñu ci suuf moo mën ñu ci kaw ndax combat bi nii bu fekkoon daf ko jël Boy Niang bëre ak moom pour man moo ëppoon rendement wala mu jëloon Eumeu Sène wala Gris Bordeaux mais Bombardier du mbër moo xam te dañ koy kii ñi ko fi daan ñëpp calculer Gris Bordeaux ba mu koy daan da naxante ak moom baabooy ba mu koy daan da ko won ragal ba cof tànk bi mu bëreeg Eumeu Sène Eumeu Sène jël ci coup arrière Bombardier yaakaar ne jeex na mu juumloo ko bi muy bëreeg Tafatine Tafatine da kaa wan dama laa ragal fexe ba dóor ko ba arbitre bi jëlee jëlee ko ci loxoom kon Bombardier du ko xamante ne ku ñu war a waaxu la rek daan ko daal njàngat boobu moom dama ko def te Balla Gaye aussi benn faute dafa feeñ lii sa force chaque jour moom ngay bëre Balla Gaye tànk bi ko Bombardier tegal bu fekkoon entraînement bi war contact bi war def na ko tànk boobu du ko yéem mais bis boobu da ko yéem parce que li war ci yaramam defu ko ci loolu moom njàngat boobu def naa ko ci baax a baax. gis na ba Balla Gaye su ko ah, yéen en tant que nga xamante ne xam ngeen làmb tey na nga gisee forme Balla Gaye bi ci combat man gis naa ne entraîné na mais lim entraîné du làmb làmb kenn du ci dem di physique dong kenn du dem ci làmb teg ko ci physique làmb pour nga daan mbër mi ngay bëreel bëree ngeen di def te Balla Gaye bi muy boo xoolee bu fekkoon kontaan na nii ñuy yoon nii ñu koy sinabee muy tent karaw geeg def yëpp bu doon contact dinañ ci am lenn luñ ci for lu toll ni tarfa talaay nii kon gisuma fu mu contactee contre Eumeu Sène ñàkk contact moo ko daan bu mujj bi mbër pour nga daan sa morom da ngay contact pour nga daan ku la mën wala koo mën dangay ngay contact contact mooy dëgg ku ci bëgg a fi nga nekk di nga contact del saxoo contact misculation am na solo boxe am na solo torop ci làmb ndax misculation mooy yokk doole mais boo amee doole am te loo ko pratiquer du dem njàngat boobu def naa ko ci conseil bi may jox Balla Gaye mooy estafu Balla Gaye gis-gis bi ma ci du dama leen di sous-estimer mais Balla Gaye daf leen a xeeb parce que ñoo ko ñoo ko mag ci làmb moo leen mag ci làmb autant pour moi. Balla moo leen mag ci mhm. leen gën a xam làmb. parce que ci ñëpp yéene nañ ko. ay Aziz yàgg nañoo yor social am mais folklore dafa bëri torop ci staff bi Balla Gaye ki koy toogal seize sax man dama ko xeeb ci Balla Gaye parce que koo mënta wax mu dégg mënoo toog ci seizième di ko conseiller ndax Balla Gaye xalaatam mu ëpp xalaatu ki koy toogal seize waxuma nag pour sous-estimer kenn bu ma sañoon daal mu fexee ñagaat boppam xool koo xamante ne xaw na mel ni moom wala bokkum xaw a déggal la tuuti mais dégg-dégg daf cee des daal ci kii toog ci seizième te tamit làmb day dañuy toll ci ndoxtu foo xam ne làmb day jaxasoo ku ci ne sa xel mu sell rek ngay kii ki lay conseil rek moo mën a dox defar làmb ji daal. loolu moom dama koy conseil la boo xam te ne Balla Gaye laa koy parce que Balla Gaye làmb ji fii ku ko ci ëpp supporters yi moo ëpp lay amateur amateur yëpp moom lañ faral ku ci bëreeg moom amateur yi moom la ñuy faral na ci bàyyi xel bu baax a baax. ñoom bañ demee ñoom euh, si action bi nga xamante ne am na ci ginnaaw sax bi Balla Gaye ba mu daanoo ñëwaatee ci làmb ji foofu coach bi waroon a liggéey ak Balla c'est que coach bi mooy li ma la wax léegi rek dafa des coaching dafa des lu bare bari ci Balla Gaye li tax mu des mooy leen am na fu làmb di maa ngi lay koy wax léegi loolu bu ñu tollee ci ndoxtu ci xelu ci làmb ku ci ne di indi xel kii bëre moom dañ koy wax li mu war a def mais du moom mooy waxee li mu war a def. ki nga xam te ne moo toog ci moo war a liggéey combat moo war a daan làmb ji. moo tax ginnaaw am solo loolu tax ñu naan mbër da nga war am ginnaaw. Balla Gaye nag loolu dafa manqué ci làmbam ji làmb ji dafa xaw a xalewe trop maa ngi jéggulu ci kàddu gi. lim bëre keroog baax na. lim bëre keroog lool la indi. donte baaxul mais loolu la indi. lim indi nag moo bariwul loolu daa daanul daa daanul bombardier. parce que bombardier da comme li ma la ko waxee rek ñi ko daan ñëpp daanee wuñ ko ci maa mën. ci tey dama laa war a daan nan laa lay daanee ci lañ ko teg. 100 pour cent bi mbër yi bari gisuñu leen ci am ci ginnaaw Balla gi. 100 pour cent Guédiawaye beeg 100 pour cent Pikine man yooyu dese naa koo gëm parce que man damaa jàpp ni contact mooy dëgg. Ah. contact lañu war a jàppalantee. buñ bokkul di contact wala bokkuñu di sato pour man 100 pour cent Guédiawaye 100 pour cent Pikine moom gëwuma ko daal loolu moom dama koy wax mais taxaw ci saako yi ni yaa mën yaay daan. ñoom ñëpp loolu la ñuy conseillante yaa ko mën pare nga nii ma la gisee nii yaa nga fa gis nañ ko ci Eumeu Sène Boy Niang gis ko ci Balla Gaye ak kii bi ak Bombardier bi gis ko ci Lac de Guiers ak Eumeu seen gis ko ci yeneen ak yeneen ñooñu ñëpp 100 pour cent 100 pour cent moom 100 pour cent bi ma xaw a gis mu xaw maa convaincre tuuti mooy li may dégg parcelle te ñoo mujjee jug ni 100 pour cent booloo bi ma gis ci ñoom gisuma ko ci ñeneen mm. nañ liggéeyaat ci loolu bu baax a baax tey jàppalante parce que mbër da war a fiir ñi nga war a fiire mooy ñi dundul làmb mais da ngay gis mbër boo xam te day dugg si sax ci saal bi <laughs> yor ndox boppam. waaw ah. ma ngay bëgg a tas écrit ba te léegi loolu dafa xew léegi. ñun biñ ciy toll di bëre dañ daan ñëw bu ñu ñëwee war a am combat suñu liet na daanaka mooy dem doxi lépp kooku bu amee bisin noonu la koy dundee. keneen ki mooy yor léppam. Mm. confiance am quoi. combat yi jëm ci kanam Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène lan la a liggéeyaat sañ-sañ la war a bëre sama gis-gis. mais sañ-sañ bi tam dafa war a am xalaat ndax Boy Niang kuy maam bu ci kawam moo la mën. combat yi ñàkk yëpp moom dañoo taxaw xaar ko mais ñi ko wan maa mën ñëpp da leen a juumloo làmb xel la daal combat jànka day am jànka du combat jànka combat jànka combat bu dëgër day am boo amee nag ñi ci ginnaaw ñoo war a taxaw wax ak mbër mi mu déggal leen teg ci te xam tamit ñu xam làmb parce que làmb ku ko dundul nii xamoo ko de. dafa dafa manqué bu baax a baax a baax. dafa manqué bu baax a baax day ñëw wax ak moom sàcc wax ak moom. jaajëfal Fall. jaajëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen site bi dépassé fii dem ba àgg fi nga xam te ne télé yi nga xam moom la ñuy tudd ci àddina mu àgg foofu barakatu rasul sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf mon frère.